sëñ bi Mballo Dia Thiam ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. waaw maa ngi lay fay Elisabeth di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi déglu sa rajo bi et puis di ñaan yàlla mu ñu liñ ci wax mu amal njëriñ ñëpp. Mhm. di nga nekk ci bopp And Gueusseum And Gueusseum nag moom mooy euh, mu lëkkale ay syndicat yu bëri tey boobaak léegi ñu ngi leen di dégg euh, ay fan a ngi ni wala sax ay weer a ngi ni ñu bëggoon a xam fu ngeen toll tey ci seen plan d'action yooyu ngeen xam ne sumb ngeen ko boobaak ak léegi. waaw sumboon nañu euh, ñetteelu plan d'action bi ñu ngi ko sumboon ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars bi. Mhm. vingt six mars mu war a jeex euh, fukki fan ak juróom-benn ci weeru avril bi. Mhm. waaw ba tax na nag euh, ponk yi nekkoon ci plan d'action bi moo doon grève ñetti fan. Mhm. alarba alxames fanweeri fan ci weeru mars bi. ak alxames àllarba ak alxames fanweeri fan ak benn ak ajuma benn fan ci weeru avril. Mhm. ah bañ ci paree tamit euh, euh, def nañu grève nag man nag respecté nañu urgence ak service minimum. Mhm. ah bañ fa jógee nag aussi def nañu benn sitting maanaam toogaayu ñaxtu euh, àllarba alxames Eh, juróom-ñaar fan ci weeru avril mm-hmm. eh, dix heures ba quatorze heures maanaam pour won eh, ñi ñëw ci suñu bérébu fajukaay ak yooyu wan leen ne ñun daal am na lu naqari mm-hmm. ndax gouvernement bi ba léegi tontu ci suñu ay jàmbat ni mu waree mm-hmm. loolu nag aussi weesu loolu tamit aussi boole woon nañ ci tamit dëddu réunion yi nga xam ni yëpp pour formation la wala pour ay coordination wala pour ay supervision mhm. euh, bàyyi ne woon nañu aussi xabaar itam dañ koy téye juróom ñaar fukki fan juróom benn ci weeru mars ba seize avril mooy durée plan d'action bi mhm. ah, yàlla def na nag euh, alxames euh, juróom-ñaari fan bi ñuy def suñu sitting bi gouvernement bi ci lettre bi nga xamee ni bataaxal bi nga xam ne ministre de la fonction publique jox nañu ko mhm. mi ngi ñuy woo pour ñu taseeg ñoom gouvernement bi ak ministre des finances bi fële ministère des finances mm-hmm. laata fukki fan ak ñaar ci weeru avril mm-hmm. ci midi pour que ñu waxtaanee mbir yi nga xam ne moo moo sabab payoor yi mm-hmm. donc loolu lañ ci lañ ci loolu lañ ci xam ah léegi nag ñun xayma nañu euh, suñu plan d' action bi ci digg bi maanaam évaluation à mi parcours samedi ah nee nañu nag euh, fu mu nekk nii dañuy dañuy toog xaar gouvernement bi lu mu ñu wax euh, talaate bii di ñëw a ah, su waxe ba pare ñu seet ndax li jàpp ko luñ ci mën a jàpp bu jaralee def plan d'action danañu daje fukki fan ak juróom benn ci weeru avril maanaam le 16 daal di daal def plan d'action wala ay plan d'action bu fekkee jar na ko bu fekkee jaralee tamit danañ danañ wax réew mi ak ñi nga xam ne ñoo yabaloon fa lañ toll gouvernement bi ci mbir yooyu la kon daal yéen waxtaan taxu leen a yëkkati seen plan d'action ndax da ngeen cee amul yaakaar moo tax. non du question amul yaakaar wala ñàkk yaakaar wante bu dee dëgg mbir yooyu léegi balaa deux mille douze dañ commencé woon di ko wax ah, président bi bu mu ñëwee mu ne dina def benn njàngat parce que gis na ni payeur yi ni mu tëddee warul tëddee noonu parce que da ngay gis ñaar nit ñu génn ci benn école wala am benn même diplôme bi di liggéey mm. kii di fay keneen kii lu mat yoon. Mm-hmm. keneen ki sax du am keneen ñeneen ñi nga xam ne sax amuñu père bu nga xam ne war na leen mën a suturloo ba weer dee. Mhm. mu ne woon da koy jooyanti mu def njàngat def na njàngat ba pare auditeur bi da nga koy jooyante te ni nga koy jooyantee. Mhm. ah moom waxu ci woon dara loolu deux mille quinze la ñu la ñu séddoo woon maanaam partagé woon njàngat mais deux mille quinze ba léegi ñu deux mille vingt deux. Mhm. loolu juróom-ñaari at a ngi nii bu nga def ci dara. ba ci élection yi la commencé euh, di régler mbirum enseignant yi ah ba pare bàyyi ñeneen ñi maanaam ñun nga xam ne ñu enseignant yi weesoo euh, ci limi euh, liggéey ko centre action sociale ñoo ci topp ci gouver ci agent état yi waaw ko mën nag ay militaire rek mais ñeneen ñi laa civil yi laa mën a wax ok ba tax na nag loolu bu mhm. amee comme mhm. ñoom lijjantiwuñ ko noonu mhm. boobu temps ñu xaar encore ba ñuy def grève ñaari fan defaat grève ñetti fan defaat sitting benn fan mhm. daal xabaar yi ñu ñu woo waaw ñun amul dara lu nga xam ne xel ne war nañ ko xalaat dul fekk ñu ñoom daal ñu ne ñu lii la ñu mën ñu laaj ñun tam ñu seet ndax mun nañu nangu loolu wala mun ñu nangu loolu <laughs> waaw ba tax na nag buñ ko nangoo baax na buñ ko nanguwul nag fukki fan ak juróom benn wala fii fii ak foofu danañu waxtaan suñu biir seet la la ñuy def kon pare ngeen pour xoolaat seen plan d'action maanaam euh, plateforme revue en quelque sorte. non non non plan d'action bi kay moom troisième plan d'action. non plateforme plateforme bi laa wax daal une plateforme revue non non plateforme yi revoiruñ ko parce que boo fàttalikoo ñun commencé ñun négociation ñun bokk ñu yeneen syndicats yi xam ne toog ñu pour négocier. Hmm. ñun depuis ñaar fukki fan benn ci weeru ci weeru mai. Hmm. ba lay passé ci atum deux mille vingt et un la ñu commencé woon di négocier ak gouvernement bi ak pàcc yëpp ministère de la santé ministère de l'habitat ak yëpp yëpp waxtaan ñoom. ba déggoo nañ ci loolu yëpp moo taxoon ñu doon xaar protocole bi ñu signé ko. Mhm. comme que signé wuñ ko nag moo taxoon na ñaar fan ak juróom-benn ci février ñu déposé beneen plateforme revendicative ak beneen préavis daal di bi léegi mbirum protocole bi signé leen ko mbirum payeur yi aussi nañ ci wax comme ni ngeen ci waxee ñeneen ñi. Mm-hmm. ah gouvernement bi waxu ci woon dara ba fan yi la ñu woo eh, bi ñu defee suñ troisième plan d' action bi nga xam ne waa ci la ñu woo dem suba. Mm-hmm. wante li li ci fàttaliku Elisabeth mooy bu lu sax. plan 1 kii waxtaan boobu ñu commencé woon vingt et un mai deux mille vingt et un mhm. dafa fekk am na beneen préavis bu ko woon le douze avril deux mille vingt et un ñu war a def yëpp ñu koy def li loi laaj ak nguur gi mais nguur gi moo dul tontu tontu yu wax pour mu tontu ko noonu waaw wante nag comme la ko waxee vingt six le seize février euh, la ñuy le seize avril pardon la ñuy la ñuy évaluer wante fii ak boobu fan yi ñetti fan juróomi fan yi ñun defuñu grève grève boobu ñu dégg si secteur bi concerné wul ànd gësëm mën na nekk na grève ñeneen mais damay leeral rek ni er grève wu du grève wu ànd gësëm grève ànd gësëm grève wul lu dul mu pareeg waxtaan ak gouvernement bi xayma loolu ba pare daal di le seize fév le seize avril kilo la ci la troisième plan d'action bi jeex bu boobaa dinañu wax euh, suñu ñu yabaloon ak yoo mi yëpp lañ ci toll gouvernement bi bu jaree nag ñu def quatrième plan d'action ñu def ko bu ko jaral aussi ñëpp danañu dégg. ñoo ngi dégg ne dañoo tekk ci xaalisu euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy grève ci wàllum santé ndax bi la bi yoon tamit concerné na waa And Gueusseum. waaw ah, presque waa And Gueusseum la sax parce que And Gueusseum boo xoolee eh, ci juróom-ñeenti travailleurs yoo fukki travailleurs yoo gis boo moytu juróom-ñetti wala juróom-ñeenti And Gueusseum lañ bokk loolu moom loolu moo nekk si le terrain. Mhm. ah ba tax na nag loolu moom ñun waxuma sax And Gueusseum mais sut sa xeex yu mu mës a xeex. Euh, ba bu mu juddoo ba léegi pour que liggéeykat santé yi li ñu situation ko jox mm-hmm. euh, ba tax na loolu tam xeex bu mosal am rek il faut que ñu indi ay ay ku xalaatee wala ñu dagg ay salaire wala ñu teq wala ñu arbitrairement wala ñu sanctionné loolu yàgg na ci mm-hmm. parce que ñoom pour ñoom xeex la rek comme que xeex la boo jox ay coup rek ñoom tam dañ lay jox ay coup waaw wante loolu moom fu mu nekk nii soxaluñu loolu moom duñ ko lijjanti fu mu nekk nii bu ñu paree ñu lijjanti loolu waaye pour le moment ñun nañu toog ak ñoom ñu wax ñu lan la ñu mën a jox ak ñun lan la ñu mën a nangu ci loolu la ñuy wéy ah li ci des nag ah li ci des nag mooy seetlu nañu même dëkk bu nga xam ni ñoom la ñuy roy ci affaire grève

taxoon ñoom ñu def ko ñu lay a encore dagal sax am na violation code du travail. Euh, non amul violation code du travail parce que dañu ne ne travaille pas ne perçoit pas ñoom noonu lañ ko dañu ko gisee nii rek comme que mhm. est ce que yow ci sa nga bañ a liggéey wala liggéey wala ki la mooy wax bi. Mhm. waaw mhm. mais loolu yëpp soxluñu ñoom ay affectation arbitraire rek façon sanction bu nekk am nañ ko ay rétrogradation yooyu dund nañ ko fi loolu moom taxul ne moo ñu am li ñu parce que gouvernement musul toog rek daal nit daal. jekk nañu war ñu nekk ci mbedd mi parce que mbedd du seen place xaar ma defal leen lu ñu bëgg waa ñuy dem ci mbedd mi parce que euh, euh, boo ñu liggéeyee bi ñu defaree mbir enseignant yi ba pare waroon nañu xam ne xel ni santé moo ci topp mm-hmm. te am na préavis de grève bu boobaa ci semaine bi ci topp wala ci fan yooyu bu ñu woowaatoon donc ñu lijjanti ko kon tey du ñu nekk ci mbedd mi mais xëy loolu ni lañ ko soobee ni lañ ko bëggee ñun tam ñu fekk leen ci loolu rek ñu déggaat njiitu réew mi wax ne euh, bépp fonctionnaire bi nga xam ne lank na ne duñ ko affecté ci biir dëkk yi euh, amaan na sax ñu dàq ko i commentaire kàddu yooyu leen li ma commentaire man du ma défendre koo xam ne nekkul ci dëgg hmm. parce que bu fekkee ni nit ki signé nga moom contrat loolu mooy nangu ngay liggéeyal ko mooy benn beneen bi mooy daf lay fay muy ñaar ñetteel bi daf lay yóbbu fi nga xam ne foofu la soxla pour liggéey bi loolu moom mooy yoon loolu la code du travail wax loolu la loolu statut bi wax. Mhm. wante nag bu fekkee ni loolu am na aussi liggéey liggéeykat yëpp ñoo bañ a dem ñi ci gën a bari ñi bañ a dem. mooy ñi nga xam ne dañoo am ay spécialité maanaam nekk nañu médecin ba pare wëlbatiku am beneen spécialisation nekk ci gynécologue wala cardiologue wala pédiatre wala lépp loo mën a xam parce que ñooñu seen spécialité dafa néew loolu bariwu fi hmm. te loolu sax du gouvernement bi la parce que indépendance ba léegi ñun ñoo am université bu njëkk te li ñu jàngale xam-xam ci médecins yi nekk même ci réewu naare yooyu dafa bari ba tax na waruñu toog ba jamono ñu toll amuñu sax lu mat juróomi junni médecin ci population boo xam ne toll nañu fukk ak juróom-ñaari million loolu jaaduwul te diggante boobu tamit ña fa ña fa nekk ay spécialité barewuñu wante nag ñoom tam war nañu xam ne bu fekkee nguur moo la fayal école primaire secondaire fayal la université ba sa spécialisation même sa spécialisation sax ci bërëb bu guur tabax foofu nga jàngee pour mën a am xam-xam i nga am waroo wëlbatiku ginnaaw naan damay dem dafay sama sama mbiri bopp wala fu mu amee xaalis foofu laay toog bu ma dem fu mu amul xaalis wala ma amul fu ma amul amul jàmm loolu loolu loolu nit ki tegu ko fenn wante nag Elisabeth li ñu war a jàpp mooy comme que ñoom dañoo néew boo leen dàqee ñoom ñëpp profession libérale la ñu ñoom ñëpp dem ci privé ba. Mhm. évidemment danañ servir population bi mais public bi moo moo perte. Mhm. te loolu loolu mhm. donc loi am na yoon am na mais ci doxalin bi président bi war na doxalee neneen donc parce que lan moo tax ñuy dem xëy na seen seen seen salaire yi wala seen paire moom moom moom la ñu xeeb. wala condition liggéey yi moom moo fa nekkul mais condition liggéey daa fay pay bi nga xam ne ñu ngi leen koy fay mu méngóog seen dayoo. bu boobaa duñu xool feneen duñu dem feneen. Mm-hmm. bon moo gën nga leen di dàq barewuñu boo leen dàqee rek yooyu ci perte te loolu population yi nag droit moo moo moo laaj loolu loi moo ko laaj aussi. Mm-hmm. léegi na lu nga xam tamit doon nañ ko fi def. maanaam booy jàng même boo nekkee entrée en sixième wala feneen ñu ni le ñu ni la comme que da ngay jàng da ngay signé engagement décennal mooy da ngay signé nga ne bu ma génnee am liggéey. Mm-hmm. dinaa liggéeyal nguur gi fukki at balaa maa dem liggéeyal sam wala dinaa liggéeyal nguur gi juróomi at balaa maa liggéeyal sama bopp loolu war na mun a nekk bu boobaa ku nekk dana am obligation def loolu balaa nga dem defi leneen mhm. mais mais comme a loolu amul ba noppi euh, fexewuñu ba formé si li nga xam ne dañoo bari ba nga xam ne bato bu dem bato costé mhm. mais problème yi rek moo fi am donc du noonu lañ koy koy gérer quoi ci sama xalaat bu gàtt. tey euh, monsieur Thiam ndax gis nga cohérence ci jëf jéeg wax ji parce que bu yàggul ci conseil des ministre benn conseil des ministres njiitu réew mi euh, mel ni ki nga xam ne dafa nekk di dalal liggéeykat yi nga xam ne jamono ji ku ci nekk yaa ngi yëngu euh, parce que nag sa anamu liggéey baaxul ñu dellu siwaat ci beneen côté bi ñu dégg mu yëkkati le bâton Euh, pour ñu sanctionner euh, quelquefois ñenn ñi ñeneen ñi euh, li jëm ci seen ñaxtu ñaxtu duñ leen may nopp ndax li ni mel cohérence am na. non amul benn cohérence parce que déjà li njëkk a nekk incohérence mooy préavis de grève loi moo ni loi moo ni balaa ngaa grève da ngay yëglu ci yëglu am na fanweeri fan yu nga xam ni ñi ki war a bëgg grève ak ki nga xam ne moom la moom la wax ni damay dama lay gréewal ko dañ ci war a waxtaan ko que grève mën am bañ am mm. loolu kay déjà moom mooy njëkk nekk incohérence wa beneen bi mooy nga signé accord ba pare nga ne doo ko appliqué beneen incohérence la ba pare nit ki ci boppam nga pousse comme grève ba pare nga dagg salaire am nekk beneen beneen incohérence ba tax na bu fekkoon ni li ñu doon wax méngoo na euh, ak li ñuy def mm-hmm. kon ba ñu paree ci jàngalekat yi rek dañuy a ah, ñii de ñu ngi fëgg bunt bi ñu ngi bu baax a baax kon léegi nañu lijjanti seen mbir balaa beneen coow am fii mm-hmm. bu boobaa danañ fexe ba a yi nga xam ne dañuy xëy duñu souffrir parce que waxuma sangre mais benn poste de santé rek nga tëj ko benn bis rek di gis koo xam ne soxla woon na pàcc wala benn pension wala dana def ko loolu rek loolaa nga la métti la ci moom ah asamaa ku mel ni ànd ak nga xam ni eh, junni ak juróomi téeméeri poste de santé nga tëj junni ak juróom benn téeméeri wala juróom ñetti téeméeri ci benn bis ci ñetti fan xam nga loolu baaxul ah hôpitaux yi nekk ñeent fukki hôpitaux boo gisee en en dehors service minimum urgence hôpitaux yi lu mat juróom eh, fanweer ak juróom nga nga nga liggéeyuñu comme s'il le faut ci ci ci ci ñeent fukk centre santé yi nekk téeméer ak ak ñaar eh, presque quatre-vingt-dix yi quatre-vingt-dix yi et quelques yi liggéey comme ni war a liggéey ñetti fan ba pare war naa defaat sitting loolu gouvernement bi nañu war na fexe ba duñu dugal ci lu mel noonu mhm. te moom moo digge ni dana def dana joyanti payoor yi ni ko joyanti ak ci ñi na ko defal parce que li mët bëgg par yi bañu ko loolu mooy wax bi. ñu lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi Mballo Dia euh, merci beaucoup Elisabeth.